asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp di ziare di jiital sama nuyoo sama ziare ci Serigne xaadim di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér yàlla sàmm ko sàmmal ko njabootam gépp ci barke Cheikh Moustapha noonu laay nuyoo di ziare soxna maam Faty Mbacké ak soxna Soukayna Ja Soukayna Mbacké ak euh, maam Faty jaxate di ziare waa kër gi ñëpp nag ma kenn wax dëgg fa yàlla di ñaanal Serigne Khadim yéen bi yàlla na oyof ci kawam. yéen gi mu am liggéeyal Serigne Touba ak Serigne Mourou safaa yàlla mottali ko ci barke Cheikh Moustapha di ziare waa kër gi ñëpp wax dëgg fa yàlla ñu ngi ci waanu waañu soxna Sukayna Mbàkke bi wax dëgg fa lépp a ngi fi daal macha allah comme niñ ko daan àndeek mbooloo mi ñëpp di ko liggéey boobu ba moom la noonu lañ ko àndandoo di ko continuer noonu di ko liggéeyee noonu wax dëgg fa yàlla dara manqué wu fi mbooloo mi ñëw nañ taalibe yi ñëw nañ wax dëgg fa yàlla fu nekk la nit jóge ñëw gàmmu si kon boog ñu ngi leen di ñaanal yàlla yokk seen fan yokk xéewal gi ba yéen gi ñu am liggéey Serigne Touba yëpp yàlla mottali ko ci barke Cheikh Moustapha di ziyaare waa kër gi mi jóge ñëw ziyaare si wax dëgg fa yàlla ñi ngi ñaan yàlla may ñu xéewal ak gudd fan ak wér ñaan ñu fekke kook jàmm ñu dara a wute dara daal at bu ne ñu àndandoo di ko gàmm ci barke Cheikh Moustapha yal na yàlla yokk xéewal yàlla may ñu gudd fan yàlla yombal lépp daal ñu àndandoo di liggéeyee sëriñ xaadim ci barke Cheikh Moustapha di sant mbooloo mi ñëpp nag waa daayira beeg ñëpp ñu ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla yokk seen fan ak xéewal bu bari ci barke Cheikh Moustapha euh, ñoo ngi fii ci waañu Altieri kër soxna Sukayna Mbàkke fii ci waañ wi bi nu xëyee nga xam ne mbokki taalibe yëpp ñu ngi taxaw jàpp ci liggéey bi ci njiital jëwrin Malick Seck ak sëriñ Mbàkke ja ak euh, soxna ci babaabu ak mbooleem soxna yi nga xam ne ñoom lañ ko àndal yëpp ñu xëy xëyee nga xam ne taal nan li nga xam ne moom la ñu taal nga xam ne ñu ngi fii taal fukki mbana ak benn euh, fas yéene nii noonu nga ko gisee mbokki taalibe yi ñu ngi préparé pour fas yene taal li nga xam ne moo di reer bi nga xam ne liggéey bi ban xëyee ca suba ba tey tàmbale dara taxawul ci pësteefu mbokki taalibe yëpp rek ñu àndandoo takku doon wenn say topp ci ginnaaw jëwriñ malik ak jëwriñ sëriñ Mbacke ja ak mboolem soxna yi nga xam ne ñoo fi ne ñu ànd nekk ci liggéey bi rek noonu mooy li nga xam ne loolu la nekk ci liggéey bi nga xam ne moo di fii ci Alceri ci kër ko composé euh, mooy waa wilaaya Touba ak waa daayira xitma bi nga xam ne ñu ngi ci kër gi ak euh, ñoom bàjjen ci ba baabu ak euh, Ndey Assu ak Sëriñ Mbàkke Ja ak mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo fi ne ndax waañ ni mu ni mu baaxoo di composé woo ginnaaw bu waa wilaaya ñëwee fekk fi bokk yi ak ñin fi fekk ak dëkkandoo yi ak waa xitma yi nga xam ne ñoo fi ne noonu la waañ wi di composé woo mbokki taalibe yi dañuy ànd